léegi benn waalo dafa ñëw si dëkk rey mag yu nekk ci dëkk bi yëpp mu des ay xale léegi nee na dafa bëgg ñu tabaxal ko ci kaw asmaan benn néeg léegi ma laaj ñu ñuy def ba tabax foofu nekk. mu ngi def ba taxaw ñu ngi def ba taxaw foofu nekk ah loolu de xaw ma ko moom. mu koy jéem a wax loolu laa bëgg ma xam ko moo tax a jóg quoi. loolu est-ce que ne loolu est-ce que ne pitax. non bi nga wax mu ngi lay jël. loolu est-ce que ne pitax. non du pitax. lu muy def ba tabax si kaw nekk. ah loolu laa xam. xaaral kon ma xooli keneen. yaay ji bëgg koo cax quoi. léegi dafa am benn waay bu ñëw si dëkk. boobu ñëw si dëkk dafa rey mag yëpp. mu des fa ay xale. nee na xale yi dama bëgg ngeen tabaxam ma nekk ci kaw asmaan bi. léegi may laajte na lañ def ba tabax fa nekk. <laughs> moom jaar naa ci ndaanaan yëpp nag di leen cax mais kenn tontuwul dama teg 1000 francs boko ko ya mom moom dafa am ñaari sante yo xamé boko boo da lay jox ben village. ben village. waaw. waaw village nga wax wala. village la la wax ki man est-ce que dégg na olof bu baax. yakarol fe <laughs> ñaari sante yo xamné boko boko bolé mu jox la ben village ben dëkk. ah. Kër Samba Kala. auzu billaahi mina shaytaani rajiim. <laughs> ah Kër Samba. <laughs> waxuma dëgg ah déet village nga ma tur nga ma wax wala sant. ñaari sant yoo xam ne boo ko boolee ñool village. mu village. ah. mille francs nga may jox wala deux mille. yow mën naa leen cinq mille francs boo xamee. benn sant boo xam ne benn sant la nga wax. ñaari sant yoo xam ne boo mu jox la village. village rek rek nga bëgg. <laughs> ah jox bu nekk daam lu koy firi. ah est-ce que boobu fàtteeku ma ma toogaat ba ba si kanam kon. <laughs> mbër. waaw nagam ziar naa la. sant delloo lépp jaam. ah am na daana yu bëri yu fi jaar quoi ma cax leen mën ñoo tekki li ma leen waaw gëm naa ne yow mi di nga ko tekki quoi. incha allah mën naa kay. waaw bëgg boole ma ñaari sant am na ñaari sant yoo xam ne boo ko boole ma jox la benn village. village bu siiw. village bu siiw. Ah. ñaari sant. waaw. 5 minutes la la may 5 minutes. kan ngor kan ngor la. encore on même c'est la kër dafa am ñaari sant yo xamantene boko bolé mu jollé ben village. légui ben village. sant ñaari sant yoo xam ne boo ko boolee mu jox ben village. yaram ma lo xawmu ko de. mais xalaat ko. waaye lo la xamul yaram xool ba ma réfléchir encore. na gaaw na gaaw. trois minutes laa la may. ñaari sant. yoo xam ne boo ko boole mu jox benn village. village bi sax siiw na. village bi siiw na. Mm. Hmm. xamu ko rek xamoo kon ñu jël jëlaat keneen quoi. ndaanaan. yes. dafa cax bu mu la bëgg a cax. mooy ban cax naa ko ndaanaan yu bari nag tontuñ ko. samp yoo ngi nii. dafa am ñaari sant yoo xam ne. boo ko boolee mu am mu jox cër bu mu la jox ci doomu aadama. cër la lay jox ci doomu doomu aadama. waaw góor gi yow daanu nga tey di xar ma ñëw. foo jëm. <laughs> miyaay am na ndaana yu bari di jaar dama leen caxam ak tontu leen tontuñ quoi léegi gëm naa yow di nga ko tontu waaw dafa am ñaari sant yoo xam ne. boo ko boolee da lay jox benn village bu siiw. léegi ma bëgg xam waaw village bu a xam jax ak ka. ah kon daanu naa kon ja ak Kare xam naa ko. Dia ak Kare ah, xam nga rek mais gars yi ma ngi ko caaxaan xam ne mais Dia ak moom moom jàkka. jàkka moom mais village a benn dëkk quoi. waaw ah, kon daanu. dafa am benn waay bu ñëw si dëkk. ba mu ñëwee si dëkk dafa rey mag yëpp des fa ay xale. léegi mu ne xale yi dama bëgg ngeen tabaxal ma nekk ci kaw asamaan bi léegi may laajte na leen def ba tabax fa nekk. nekk ci kaw asamaan bi. <laughs> doy na waar. comme niñ def daal ba ba tabax nekk ci kaw asamaan bi quoi. xiin la xiin. encore auzu billaahi mina xiin. non du loolu de <laughs> du xiin. laa yor sama waa kon. kon bàyyi ma benn waay bu dem si dëkk ba mu demee si dëkk dafa rey mag yëpp ba mu reyee mag yi xale yi fa des léegi mu ne xale yi dama bëgg ngeen tabaxal ma nekk ci asmaan bi léegi may laajte na lañ def ba tabaxal ko nekk loolu essai la ñuy teg. encore auzu billaahi mina shaytaani rajiim. eseel eseel la ñuy teg après ñu nekk ci kaw ñooy wax gaa yi suuf ñu jox leen si yooyu ñu koy jàllee fële néeg bi taxawee. billaahi loolu gis naa ko man mi asbillahi min shaytan rajim néeg néeg li ñuy tabax ci asmaan kaw eseel rek la ñuy jokkalante nii. moo koy taw moo koy tabax loolu koy gis naa ko. saa yi hmm? remo bi remo loolu nga gis quoi. waaw ah, man de a gis moom. maanaam nekk ci asmaan bi. waaw waaw noonu rek la mun a demee léegi bu tabax foo ne mën tabax nekk. non bu duut SL doo ko tabax mais bu dee am na rek. Ah. loolu day tax. day tax SL am na de. SL waaw après mun nañ ko tabax. mën nañ ko tabax waaw waaw. <laughs> du loolu mooy réponse. waaw loolooy réponse bi waaw. non réew mi du loolu. Ah, <laughs> non léegi kaay léegi yow moom yow ma mënagu ma laa bàyyi. yow moom dama bëgg léegi da am benn bu ma lay joxaat nu ma ko waxee noonu nga koy waxee quoi. waaw lu léegi lu ma wax rek waxal. dégg nga pare nga waaw. pare pare na waaw mbëtt bu gudd bu dëng bi dugg si pax mu gudd bu dëng ma jël bant bu gudd bu dëng lu ko di mbëtt bu gudd bu dëng mbëtt bu gudd bu dëng bu dugg si pax mu gudd dama koy waxee day bar day bar waaye mbëtt bar bu gudd bu dëng dugg si pax mu gudd bu dëng ma jël bant bu gudd bu dëng lu ko di mbëtt bu gudd bu dëng waaw loolu moo loolu mu bar rek <laughs> yow gaay gaay ay waaj non mo demin nga quoi yàgg na man Pane Sader benn saa mais fooy liggéey. waa Koungheul ah waa Koungheul waaw góorgóorlu rek lépp dina baax. cek cek man sa vélo nice na de. waaw ah, mais nag taxi man day noob xoolal ni nga la demee waaw. ah macha allah. mais mbaar xaalis bi nga ñëw rek. waaw bu baax sant yàlla daal. waaw bon sant léegi xam naa ne moom daa benn cax bu ma lay joxaat keroog am na lu ma la joxoon mais dafa mel trouvé ko léegi bii moom tegal naa la 1000 francs quoi boo ko trouvé. dafa am benn waay bu ñëw si dëkk rey mag yëpp des fa ay xale léegi mu ne xale dama bëggeen tabaxal ma nekk ci asmaan bi benn nekk ci asmaan léegi may laajte na leen def ba tabaxal ko néeg foofu quoi. mais xale yi bi mu leen waxee pour ñu tabaxal ko néeg bi quoi. Ah. dañ ko waroon laaj kan mooy defar fondation bi. kan mooy defar. fondation bi. loolu lañ ko war a laaj quoi. waaw ah. man loolu laa gis. loolu nga gis mooy leen nag. bu ñu ko posé waatee question comme ban question lañ koy posé waat pour ko. buñ ne ko buñ léegi ñoom mën nañ ko posé benn question ne léegi. kan moo ñuy tabaxal kan moo ñuy rënd kan moo ñuy fondement kan moo ñuy rëddal waa fondement ko laaj waaw loolu lañ koy laaj bu fekkee rey nañ mag yëpp ñu bëgg xale te waxal leen dañ koy laaj kan mooy rëdd fondation bi waaw lo xam nga moom xam moom moo bëgg ñu rëdd xale moom mënuñ rëdd fondation mënuñ rëdd fondation waaw mais tabax mën nañoo jàpp pour ñu tabax jege nga réponse bi mais des na de am na félicitation na de am na loo fàttali lu tuuti des na ah? ah mais man sama gis-gis loolu la quoi. mais des na lu ndaw mais yaa ngi kaw réponse bi nag yaa ngi si kawam waaw non daal xoolal. waaw ah. dugg benn tànk bi de mais benn bee des. non ñaar yëpp dugg na pour. non non benn moo des. non benn rek lu ndaw dëgg li ma la posé. ma léegi ñoom. buñ ne ko xam nga daf ne mu bëgg ngeen tabaxal ma nekk ci kaw asmaan bi. waaw léegi nga la nga tontu lan. booy dañ kaa dañ a laaj na ko ban mag mooy rëdd fondation bi. waaw léegi ban mag mooy rëdd fondation mooy bi dañ la koy laajaat quoi. waaw léegi moom léegi bu ñu ko kan nga rëdd fondation bi léegi moom lu mu lay war xale yi dañ kaa war laaj lan moo tax ñu rey mag. kan moo ñu rëddal fondation bi. fondation bi waaw léegi xale yi avant ñu koy wax loolu daam luñ ko waxoon. daam luñ ko wax mais liñ ko waxoon nag moom wax dëgg yàlla moom. des na ma leer man loolu xaw ma ko daal si man gisee wu ma ko noonu quoi. waaw yaa ngi si kaw réponse bi xale njëkkoon a wax wa lo xale njëkkoon wax man lo moom ko kon. ah mais tax bi loolu la bok wa lo la xamul. bo <laughs> bon ba tey mënuguma la bay ndax ndaanaan ko quoi. legi man na la joxat benen li wax nga wax. luma def nga def nu wax nga wax. te nu ko waxe waxee nu nga koy waxee. waaw legi bo paree ñu dem top xol ma para nga. para nga ma ngi wax de para nga. mbët bu gudd bu dëng bi dugg si ma gudd bu dëng ma jël bandu bu gudd bu dëng lu ko mbët bu gudd bu dëng bi. mbët bu gudd <laughs> <laughs> gars yi wax lii wax lii la gaaw mbëtt mu gudd mu dëng dugg si pax mu gudd mu dëng ma jël pax mu dugg bant mu gudd mu dëng la xotti mbëtt mu gudd mu dëng mbëtt mu gudd mu dëng mu dugg si pax mu gudd mu dëng ma jël bant mu gudd mu dëng la xotti mbëtt mu dugg pax mu gudd mu dëng <laughs> gars yi kaa leen kaa leen ma jël leen kaa leen kaa leen yéen xam naa ne yéen war ngeen lekk xaalis yu quoi ñoo leen ma jox leen benn ñoo <laughs> leen jëlee sama ndaaraane ñu commencé fii quoi non jëlee ma sama ndaaraane non jëlee ma cax dama cax cax cax laa lay def léegi comme cax naa la am na ñaari sant yoo xam ne boo ko boole mu jox la benn dëkk àll bu siiw ñaari sant yoo xam ne boo boole mu jox mu jox benn dëkk àll bu siiw ñaari ngay boole mu jox la bu siiw xamoo ko Njaay non non Njaay ñaari sant laa la ñaari sant mu jox benn dëkk benn dëkk bu siiw ah, <laughs> ah ya, jambar, Ayo jambar. ko léegi am na ñaari yu nekk si do eh, si manam si doomu aadama si rawaani yeeg ci lépp lépp lépp boko ko boolee boo rek mu jox mu jox la ñaari si yaram waaw si yaram la nekk mais boo ko boolee dalay jox ñaari sant nday joor déedéet du moom jum nga yow non man xaw ma jo bon dañoo teng 1000 francs quoi ñu am cak. cax lay léegi boo ko trouvé bon yaa moom 1000 francs yi quoi léegi dañuy së waaw benn bu mag la mag dafa dem ci biir dëkk ba demee dafa mag yëpp mu des ay xale quoi léegi mu ne dama bëgg ngeen tabaxal néeg ci kaw asmaan bi léegi may laajte na leen def ba tabax néeg bi ci kaw asmaan si waaw ah, néeg néeg kaw asmaan si néeg ci kaw asamaan waaw mu nekk sëñ bi <laughs> mën a nekk de <laughs> léegi nekkee <laughs> non laay laaj ni muy nekkee yow laa daan waaye yow néeg ci asamaan sa waaye baaxul mënu nekk de war a nekk xalaatal xalaatu maanaake mag bi dafa dem si dëkk bi rey mag yépp mu des ay xale léegi mu ne leen dama bëggee tabaxal ma néeg ci kaw asamaan bi ma rey leen da leen rey de kon bëgg na toroxal rek waaye xam nga ci kaw asamaan moom mënu nekk sëñ bi naka mu jaam dem naa fi si daanaan yu bëri quoi ma cax leen waaw mais kenn tontu ko dama teg 1000 francs boo ko répondre yaa moom. waaw ban cax la. dafa am ñaari sant yoo xam ne boo ko boolee. Hmm. da lay jox benn village bu siiw. waaw yan sant yan yan sant la. ñaari sant laa wax yoo xam ne boo ko boolee da jox benn dëkk bu siw ñaari sant boo ko boole da lay jox benn dëkk àll benn dëkk àll bu siiw. bu siw ah. loolu moo wax dëgg yàlla. xalaat ko di ko xam yow naanaan ñaare dëkkaal ñaari ñaare sant boo ko boole dana la jox benn dëkk. bu siiw. waaw dëkk àll bu siiw sax. Kaolack. bismilaahi min seytaani rajiim. Kaolack. dëgg ma. ah Kaolack nangaan. voilà. loolu nga saa yow. ñaari sànq booy dana dana dana léegi léegi loolu dana jox nga ne nan nu nga santai. kaw lax nangaan léegi kaw kaw lak nangaan waaw loolu mooy ah kaw ka kaw lak kaw lek sant ah gi nga yem sama xaalis temps yëpp nga ma topp ah. bon naa la joxaat beneen cax bii ma la joxaat nii waaw ah. eh, maa ngi ci biir néeg ah. sama sikkim ci biti yaa ngi ci biir néeg sa sikkim ci biti puju xëdd xëdd mooy néegu xëdd yooyu noonu puuj bi nekk ci kaw. non non du loolu maa ngi ci biir néeg sama sikkim ci biti. sa sikkim bi ci biti. te rido. non du rido. du rido. li nekk ci biir néeg nit lay nekk wala lan matériel maa ngi si biir néeg sama sikkim ci biti. xalaata yow ndaanaan nga. doom ak baay. encore on se dit la même ah non du doon la doom ak baay kay non non. du boobu léegi. yow laa koy laajee. maa ngi si biir nekk sama sikkim si biir waaw. amata loolu lan la. yow loolu la maa ngi laaj. Duudu laaja Duudu kon bàyyi dem xool ñeneen dafa am daanaan yoo xam ne mu leen cax mais kenn mënu koo tontu dama teg ñaar téeméer 1000 francs laa teg. léegi yow boo ko tontoo rek am nga 1000 francs waaw benn mag dafa dem ci dëkk. moom mu ci dëkk dafa rey mag yëpp des fa ay xale. léegi mu ne leen da ngeen may tabaxal ci kaw asamaan si wala leen léegi may laaj na lañ def ba tabax néeg bi ci kaw asamaan si. <laughs> loolu. cinq minutes la may cinq minutes. na la ñuy def ba la. ba léegi ba tabaxal ci kaw asamaan moom loolu la wax. nee dafa bëgg ñu tabax ko néeg si kaw asamaan si wala mu rey <laughs> kii xaaral ñu xool keneen ko quoi kii <laughs> ndaanaan bi lu bëgg a cax 1000 francs laa la tegal mhm. boo ko trouvé rek yaa moom mille yi ah, loolu neex am na ñaari sant yoo xam ne boo ko boolee mu jox la benn dëkk àll bu siiw sant yoo xam ne soo ko mu jox benn dëkk àll bu siiw waaw non xaw ma ko xalaatal 1000 francs yow laa ko yéene xalaatal ci kaw. doo xalaat. 5 <laughs> minutes laa la may 5 minutes. <laughs> xamoo ko ah xamoo ko kon baax na léegi bàyyi mu xool yeneen. ndaanaan yow moom cax bi ma la cax nii xam naa ni di nga ko trouver quoi mille francs laa la ci degal. waaw fu mooy la lu muy signifié Fouta Toubé. dégg mu li nga. Fouta Toubé lu muy signifié. wolof la quoi Fouta Toubé. non xaw ma lool. xamoo lool non non. kon ñu dem xooli ñeneen. <laughs> dafa am naanaan yoo xam lu ma waxoon ne bu ko waxee ma jox leen 1000 francs mais yow moo xam naa ne xam nga ko quoi te yaakaar naa ne war nga ko mën a wax léegi li ma wax rek nga wax nu ma ko defee nga defee ko quoi. waaw mbëtt mu gudd bu dëgg bi dugg si pax mu gudd bu dëgg bi man gudd bu dëgg bi ma jël bant bu gudd nag loxo mbëtt bu gudd bi pax mu gaaw mbëtt ma pax ma gudd ma dëng bi non non mbëtt ma gudd bu dëgg bi dugg si pax ma gudd bu dëgg ma jël bant bu gudd nag loxo mbëtt bu gudd bi dëng bi mbëtt ma gudd bu dëng dëng dugg si pax ma gudd bu dëng dëng ana bant bu gudd bu dëng dëng war a génne mbëtt mu gudd bu dëng bu dugg si pax ma gudd bu dëng dëng aja waaw saa kii trouvé na bon kii moo trouvé comme li ma waxoon ku ko wax rek nga gagné ko léegi kii moo ko quoi mais da ca def xëwal parce que da ko doon fooye temps booy léegi yaakaar naa ku ko fooyewu rek doo ko mën wax mais ndaanaan la quoi léegi nag ñu ngi ko defee Wack Ngouna chaque euh, mardi ak chaque euh, dimanche quoi dañ ko fi defee seen micro territoire dañ ci teg xaalis quoi léegi ku ko trouvé rek bon yow jël kontaan ci yéen nag bëgg ànd ak yéen nag euh, seen Wack TV quoi yéen ñëpp ngeen abonné bon partagé j'aime ñun nag yéen ñoo ko bokk quoi te yéen da ngeen gëm seen bopp.